bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga soxla kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï waaye ñu ngi fii ci rond point Dominique ba tey euh, kër gi nga xamante ni yaakaar naa fa la ñu dalal Gambien yi ñi nga xamante ni dañoo déplacé wu jóge Gambie fas yéene ñëw supporter si seen mbër muy Ama Baldé ñu toog ak ñoom fas yéene waxtaan ak ñoom seen tànk ak nanga nga ni moo leen booleeg Ama Baldé Cheikh bi ziar naa la. waaw jàmbaar naa lay fay. am jàmm. waaw sant yàlla bu baax a baax baax. waaw di leen masawu coono rek ndax xam naa ni depuis combat ba léegi. Mhm. yéen a ngi yëg kon yaakaar naa ni faaw ñu masaw leen coona waaw ñu nit ngeen ngeen ngeen waaw waaw ñëw fii nga xamante ne mooy Pikine ñëw supporter suñu mbër muy Ama bale moom dong ñu ko jaral nag keneen jaral jaraluñu ko seen digganteeg ak Ama waaw mooy lu yàgg ndax wolof day wax lu yàgg lu nekk dëgg la waaw depuis mbapat ñu nag woon moom ñun liggéeyu ñu yóbbu Gambie mais Sénégal gi lañ dëkk waaw te dañu ko ji nag moo tax saa yu ko amee mhm. dañuy bàyyi suñu yitte yëpp ñëwal ko mhm. te incha allahu rabi mhm. suba ci kàttanu yàlla yàlla dina ko may ndam lu seddu guy guy guy mais adversaire bi mu am Modou waaw Modou Lo champion la ndax yaakaar naa ne buñ ne Modou Lo mooy favori ci làmb ji nee nañ moo dàq bëre moo dàq xeex moo ëpp jàppale mais ci kàttanu yàlla suba yàlla moom Ama Baldé lay àndal loolu moo am sax dina yomb waaw Modou Lo bu bëggee mu yom mu yomb bu bëggee mu metti mu metti. mu metti waaw moom lu mu bëgg rek moo ko teree neex. ayca kontaan naa ci yow. jaajëf macha allah. waaw ngi lay bëgg bër kay yaa am jàmm sant ko yàlla bu wax kay waaw nga jóge ñëw teewal si sa mbër Ama Baldé waaw ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu waa réew mi muy Pikine fi ñu nekk di nuyu tamit waa Gambie gi ñu jógee ñu jógee Gambie tamit ñëw supporté si Ama mu doon koo xamante ne nii ñun ak moom ay seex lan nekkul sax suñu mbër ay feral na ñun ak moom di ay mag mu doon nit ku neex a bëgg doon nit ku gëm yàlla mhm. doon nit ab Baay di ab taalibe mhm. parce ñun xeebuñu benn yoon. Mhm. à chaque fois ci lu mu nekk dañu si jiital. ñu ko ñaan yàlla suba yàlla na ko yàlla suturaal. Mhm. combat bi nga xam ne ne plus de five years. Mhm. cinq ans mu di daw. lépp lépp lu mu si sonnoon yàlla na doon mbégteem suba. ñoo ko ñaanal di ko ñaanal ci dara yi ñu bokk. di waxit waa Pikine yëpp nan ko gën a doole ñaanal gën koo doole suturaal. parce que Ama nit la koo xamante ni nit ku baax la. te yaakaar naa ne mais adversaire bi mu am tey muy Modou loo es ce que dina yomb. adversaire bi Modou Lo du yomb mais Modou Lo tamit Ama du yomb si moom mais lambal rek du génn lu may di làmb. Mhm. parce que Ama jàpp naa ne benn mbër du ko jaaxal si làmb. Mhm. bëri fi ay combat yoo si ginnaaw dañ ne woon du ci génn moo tax ma gëm ni dana ci génn. dana ci génn waaw mais ku xam Ama xam ni attaquant la ku xam Modou Lo xam ni pour ñu nit attaqué ko daan ko tam yombul di nga digal Ama mu attaqué ñu ko attaqué ñëpp dañ koo daan. ñi ko ñi ko xaar. Mhm. mais boo xanaa Ama Sène laa gis moo ko attaqué ñàkk mais Bombardier daf ko attaqué dangu Balla Gaye ko dangu mhm. te Ama attaquant la mhm. suba moom bu tegee tàngu droit moom Ama teg tàngu ah, Ama teg tàngu droit moom mu teg tàngu gauche mhm. lamb ji gëm naa ne du yàgg du yàgg kontaan naa ci yow waaw jaajëf jaajëf dégg na dégg nga loolu Badou ma ambiance bi biir Pikine ñu ngi fii kër gi nga xamante ni fa la Gambien yi daal waaye ci suuf waa Pikine na nga koy yëngal fii ci rond-point Dominique ma foo sànni mbatt mu tag aujourd'hui Pikine c'est la fête nee naa kenn xammeewul Gambien yi kenn xammeewul Sénégalais yi tey ñëpp a jaxasoo biir Pikine ànd bokk ndey ak baay Badou ma photo bi ci rond-point bi xoolal auto police bi ndeysaan ma photo Ama bi ci rond-point ba oxo waa déggal moto bi yow mais xale yee ngi ñi luñ leen dee xale am na luñ leen dee ndeysaan gaa yaa ngi jugee ba Gàmbi ñëw ndeysaan supporter si seen mbër oxo xoolal xale yi ña rey borom moto bi yow ña rey borom moto bi la ilaha illallah la ilaha illallah yi combat royal mu def nii Luc Nicolaï lu mu def nii oxo mboro moto bi dana dee de moom tey moo bàyyi def ba du xoolal loolu baa ngay windeelu waa eh waa mais xoolal borom yaramu neen bi xoolal ma nga si mi ba fi ne yegut lu bari ndeysaan nee naa la mbër amul fay supporter am mbër amul fay supporter am oxo ndeysaan déggal ma loolu Gambien yi kontaan ngeen de sant dégg nga loolu Badou. bu paxee waaw ndam rek laa yëpp. ndeysaan ndam rek laa yëpp instant yi. mais gis nga Pikine ni mel tey. waaw lii dafa sant lii dafa sedd xol. ndeysaan bilaay dafa sedd xol. lii ndam rek lañ ci ñaan. Mhm. waaw ndam rek lañ ci ñaan. mais nga jugee ba Gàmbi ndax ama. waaw moom rek moo ñu ko jaral nag. wax dëgg yàlla. seen digganteeg moom. waaw du ko ñaanal ndam rek. billaay parce que lii rek lii rek dama seetlu ay xale ndaw. waaw si biir cinq heures ba tey ñu ngi fi jaayante. macha allah waaw bi ngeen am doy na waar Modou Lo. du robot de nit la de. ah du robot de nit la. du robot nit la. Mhm. ça veut dire dara nit la rek. <laughs> wóor na yàlla dina yàgg. <laughs> ay yaay. combat bi ama la de ama. mais amaa xamee nga loolu. Modou Lo nenu baxal la yaram. waay yow dégg nga loolu. waaw xool ñi bëgg naa la. jëlal waa ji jëlal waa ji waxal gàmm bi Gambien laa dégg suma wax bi du leer. loolu moo neex. waaw ah, ok. loo yëg. kontaan rek. bii mooy suma first time ma ñëw fii. waaye mooy quatrième fois. mooy suma première fois. première fois ma ñëw. ndeysaan. mais dama yéemu. ndeysaan. non. loo gisee senegal Sénégal neex na. seen lamb seen lamb ngay dem. yaa ngi nii taxaw jàkkaarloog arène nationale. dama ko gis rek kontaan. gis ne yéen a ngi dem. wax dëgg yàlla. seen làmb a ngi dem. di ñaanal Ama rek ëllëg ndam bu sedd guy. ndam bu sedd guy laa koy ñaanal. mais adversaire bi mu am. Ah, la leen sañ-sañ la Ama day daan. foo teg moom sañ la. foo teg ni Modou Ama day daan. Ama dama ko gis tey gis nu mu liggéey. tey si ngoon gis naa ko gis naa ne liggéey na am na forme. wax dëgg yàlla day daan. kontaan Ama yee feel no Ama rek la ñuy topp moo ñu jara jóge Gambie ñëw ba fii fanaan ci bi ba léegi ñu ngi nii nelawuñ ba te fas nelaw ba après victoire bi incha allah Ama borom baala maa moom depuis 2012 ba léegi lay xamante sama meilleur ami moo tax ma xam ko tey suuf seen dafa faatu yàllaahu dafa faatu yàllaahu cee moo tax ma xamaamaa depuis 2012 bilaahi bés bi bëggoon naa mu fekkee ko dam bi ëllëg su ko amaa si barki suñ borom ak si barki Serigne Touba moom laa ko yéenee bilaahi mais wat bi nu mu bi bi ama laa ko tuddee bi mooy roi des arènes couronne baa ngi nii man jaru ma teg couronne couronne baa ngi nii ba pare ah badu dégg ma loolu badu ma loolu waaye ambiance baa nga noonu de Pikine aujourd'hui nee ma c'est la waaye Badou xoolal xoolal loolu. ndeysaan eh xoolal borom moto bi yow ma ngay fo ma ngay fo lii de eh waay ma ngay fo ah. xanaa Amérique lañ nekk. ah doy na waar de. man de tey nekkul de tey Amérique laa gis sam bopp de. lii yéeme na yéeme na. ay waay bu fi yemoon sax mu bu fi yemoon sax mu neex. nee sax mu neex. waaye te baa ngi neex waay. Eh. lan la loo wax yow yow loo dee daw oh Gambien yi Gambien yi nangu wu ñoo wax Badou dinañ wax de man ma ngay daw. yàlla bu baax. Gambie ko jógee. Gambie laa jógee. seen mbër am na combat de. combat bu yomb sax. bu yomb. combat bu yomb laa la wax. roi des arènes lay dajal. ma ne roi des arènes kooku ñu. ñun dañoo pare suñu combat ba pare. moom rek la ñu xaar bu yàggere moo ko yàggal. su yàggeere moo ko yàggal. su yàggee moo doo ko yàggal. moo ko yàggal. ñun fu mu ni nii kay xam nga li ñoom omelette moom boo ko defee si diwlin rek jeex na. jeex na jël rek def si mbuuru moo des. fi mu bi moom moom rek la ñu xaar. omelette ngeen jàppee Modou. omelette lañ ko jàpp dañ ko faraay ba pare dugal ko si biir mburu ñu jeexal si. mais xaa wax ñu leen roi des ngeen di daje. roi des arènes kooku yëngaloo ñu roi des arènes ma ne roi jeex na. dama ne jeex na. Ah? bi amaa ne amaa amaa mooy roi des te moom mooy doon roi des arènes incha allah rabbi. ñaan nañ suñu borom tam may ko ndam bi tamit incha allah yàlla nañu ko may. te ñaan nañ ko suñu borom bi tamit tabaarakallah. Ah. waaw mais mais Ama Baldé seen diggante ak moom ba tax ngeen jugee Gambie ñëw fi. daf ñu jaral lool. amaa la te dafa am yar am teggin nit ki nag bu demee nag ba yaru na wan la yaru nag il faut nga kontaan si moom amaa daf ñëw neex. te moo tax ñu déplacé depuis Gambie ñëw fii nii. waaw du tey demb la woon. Mhm. nit ki euh, su defee lu baax gërëm ko. Mhm. su yaroo tamit gërëm ko. Mhm. kon amaa mooy ñun ñooy amaa amaa mooy ñun. waaw Sénégal bi la. Uh-huh. kon sant yàlla a yonent bi ñu ngi gën a gërëm Sénégal di gërëm Gambia. alhamdulilah uh-huh. combat bi yàlla na yàlla may ndam bi. dañu seet mbokki ni gis nga ñu ngi duñ dara manqué wu lépp mën na stade moom combat bi ñu jàkkaarloo moom rek ñu am la repêche loolu la ñu soxla. am na solo. macha allah ba du ñu xool gars yi ci des. maa la doon ziar bu baax. Gambie nga bàyyeekoo. waaw Gambie bàyyeekoo maay Ama Balde. Uh-huh. maay Dami Fallaye Balde rakki Zil Balde rakki Demba Balde rakki Paate Balde. Uh-huh. rakki Papa Balde maay Nijaay Pokola Balde. maay waaw. maay Nijaay Pokola Balde maay Baye Jacob. maay Babacar Balde maay Baye Demba Balde bu ndaw. macha allah waaw maay Ama Balde maa war a bëri amul suba incha allah su kattan Arène di dalal xel ñëpp képp ku soppite Ama Balde na sa xel dal incha allah. mais da nga lu garaaw lu doy waar. yaay Ama Balde yaa war a bëri ak Modou Lo suba incha allah. waaw incha allah man mi ñu wax maa war a bëri Ama Balde. Hmm. Ama Balde ñu ay seex la maay Ama Balde bu Gambie mooy Ama Balde Sénégal man Gambie laa dëkk. a a bàyyi a yàlla moo ko def si man dama ko bëgg a jël takk defewuma dara dara dara dama ko bëgg a jël takk waaw soo gisee ma mag mag ñoo mooy dafa ànd ak suma mag benn xam ne ku ñëw Jules Baldé Junior mhm. dafa bëgg Ama Baldé trop waaw Abibulaay Jules Baldé Junior di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xaare ko arjana efa suam te sax bu ma ñëwee sax di ma la sa képp sax di seet yaayam fekk naa foofu magam ñoom dabala ñoom maram ak ñoom ñoom xalima yëpp fekk naa gaay ak yaayam ma ngi ko ñaanal bu baax yal na ko yàlla yërëm te xaar ko arjana of sukom mais xarañ ngeen am de Modou Lo waa dëgg la Modou xarañ na waaye nga doon fa la fekk fii de ah. ngemb la fekk si kër bi ah. waaw waaw Modou Modou fu mu fekk ngemb li moom non mun naa moon def ko abar rek waaye amaa moon def bi <laughs> te soo bàyyi xel su mboo fa la bale dafa am lu mu mu ne mbur baa nga ñëw mooy Ama Baldé mu ne bés bu ñu ko solal ngemu Ama Baldé ngemu am su ko solal Ama Baldé ba mu bu ko lu ko naxaroo lam yëpp Ama Baldé du nga faj te mooy loolu mooy loolu mooy subar inshallah na am na yeneen bis yu war a jóge Gambie waaw mu ngi des sax na nga nit yi comme ça bis bi da nga dajante ferry bi mhm. nit yi mudum foofu noonu wax naka ferry bi dem bàyyante foofu noonu am na des si gannaaw waa inshallah gaa ñu ngi ñëwaat waaw inshallah waaw waaw inshallah la cinq waaw